mooy leader boo xam ni du nëbbatu du làqatu leader la boo xam ni du nëbbatu du làqatu leader la bu mën a dimmalee ci poosam dooley kenn fekku ko ci poosam rek moom la président ñing maa ngi ci financement yi maa ngi ci éducation bi ma ngi ci lépp seen lépp nag ci dooley boppam kon ku am président bu mel noonu boole ko muy seet nit ñi di leen passé visite nekk ci santé bi nekk ci social bi kon du nu man lu may sant ko gërëm ko le président ñing yéen la jeunesse maa ngi xamal ni yéen ñi waxtaan ba nga jël parole tey jii li nga wax dugg na ci nopp ki nga ko war a dugal parce que le président Gning dafay wax ni moom lëkkaloom ak le président de la république maître monsieur Macky Sall ab lëkkaloom ak moom mooy pour mu saafara lii ngeen jàmbat tey parce que yaakaar naa ni problème courant ak ndox problème mu infrastructure problème mu santé bi li ci ëpp ëpp solo mooy le président de la république moo ko war a def su dee problème mu acte de naissance yi ngeen wax yaakaar naa ni nag du mag du monsieur Gningue président moo ko war a def monsieur Gningue li mu man jàppale leen ba yéen ci seen bopp seeni soxla faju seeni aajo faju ngeen am moyen yoo xam ni dingeen seeti état civil bi peut-être que li ngeen li ngeen li ngeen di demander xëy na ay audience foraine ak yooyu sa audience foraine yooyu yaakaar naa ni maire yi ñoo ko war a livrer pour euh, jeunesse bi ak habitation yi ñoom ñëpp ñu mën cee jot kon ci kaw loolu aussi ñu leen di xamal ni Pa Mamadou de ci am ndimbale mën na cee jàpp mais kanta defaral leen ko nag kooku moom wax dëgg yàlla li olof di wax rek ndimbal da cay fekk loxol borom loola ñoo ngi leen koy leeral parce que su ngeen gisee aussi ma waxee nii sunu président ñing dafa wax ni président la boo xam ni dundewul politique mais day dundal politique parce que lii muy def bien avant muy dugg ci politique bi ci la commencé woon sociale bii muy def bien avant muy dugg ci politique bi ci la commencé woon financement yi muy def kon le président ñing dundeewul politique bi da koy dundal kon su lëkkaloog le président Macky Sall yaakaar naa ni aajo yeneen yi nga xam ni gouvernement ñoo ko war def dinañ faju sa loolu ñu ngi koy teg ci loxol monsieur Dieng yaakaar naa ni su si Mimi jotee président de la république du Sénégal soo excellence monsieur Macky Sall dina ci jot ci kaw loolu nag ma di leen xamal ni ñeme na tëkkale waaye ñemewul dendale ñëw ci groupement de famille yi nga xam ne ñoo ànd ak Modou Gningue ñooñu aussi maa leen sant di leen remercier gis naa mobilisation bi rafet na donc aussi di remercier waa ASP yëpp à travers le président Mamadou Gningue moom dinaa ñëw ci ñoom mais ñeen ñëpp kàddu gi maa ngi koy jël jox ko parce que suñu yaay la suñu lépp la te seetaan la ñu wax dëgg fa yàlla lépp li yëpp moom la jigéen ñi tey bu ñu toogee mel nii maire Mbathio la ñoo ngi lay sant di la gërëm yaa ngi jàppale moo la ñu bu ma jógee foofu di remercier aussi délégation bu fi ñëw boo xam ne Ibrahima Sall moo leen ñabal ñu jóge ba Dakar ñëw sànq waa ji wax na ko ni moo nekkoon ministre de l' éducation ànd ak Macky Sall ci première dëpp depuis 2009 ci Dekkal Ngor ba Macky Sall gagné bi muy bi Macky Sall yi gagné Fatick Ibrahima Sall la àndal nekk ci Dekkal Ngor. donc Ibrahima Sall militant première heure la boo xam ni mooy ànd ak Macky Sall donc kooku lépp aussi lu ma am ci sama genwàll lu ci bëri moo ko def ci man tey bu ma xamee Mamadou Gningue moom moo ma nekk Dakar woo ma téléphone ne ma maa ngi lay présenter benn professeur bu mag benn responsable bu mag nekk Thiès dama bëgg ngeen dem ànd liggéey Thiès pour que ñu mën ko jël jokkoo Mamadou Gningue donc kooku aussi awuma ko amuma euh, fay lu ma koy fay damay ñaan yàlla yàlla yàggal taxawaayam donc ki si des mooy Mamadou Gningue bi ma ko xamee ba léegi wax dëgg fa yàlla ouverture laa gis ci moom ak baax donc yéen ñëpp maa ngi ñaan yàlla ñu ànd ci liggéey boobu ñuy liggéey pour permettre Thiès am ay tànk yu bees tànk yu bees mooy tàllal loxo ay doomu Thiès Mamadou Gningue mii moom lañ fas yéene dénk Thiès moom lañ yaakaar ci Thiès donc loolu nag su amee ñu ñëpp war nañ mën a taxaw nekk benn ànd ak moom ci ginnaawam li ñu bëgg mooy gagné Thiès gagné Thiès mooy gagné déjà Darou Salaam suñu koñ bi ñu dëkk école centre centre baa nii élection yi passé Idriss Seck 70 voix lañ fi mais foog naa ne li ñu yóbbu ñu ñu inscrire transféré fi ay militants je crois bu ñëwoon tey tey tey tey Mamadou Gningue mooy gagné école bi ndax moom ci école bi lay voté Mamadou Gningue donc yéen waa Daaru Salaam préparé leen fii la Mamadou Gningue di voté ci école bi Daaru la dëkk nekk doomu Daaru Salaam ba pare jub pour defar Thiès donc président Gningue maa ngi lay sant di la gërëm ci taxawaay bi lii lépp nag bu amee moom la ak Ibrahima saal donc dañ leen di sant di leen gërëm ci remerciement yooyu di leen wax nag si le plan politique am na concept bu ñuy jël pour toxal les militants de Idriss Seck ñu ñëw fii ci suñu parti ASP dugg ci modèle donc loolu déjà ñoo ngi ci ñoo ngi inscrire nit ñi ñoo ngi leen di transférer ñoo ngi dem yóbbu maintenant li ci des nag mooy élection yi am na ay carte yu bees yu génn loolu tamit bu ñu topp Mumbaay ba ba fàtte ko dem leen ngeen defari seen i carte moo ngi espace jeune commission baa nga fa ku amul carte bu ñëwee fii. ñun di dinañ ko defal kayitu juddu orienté ko wax ko fu quarante yi fu koy defaree ñu defaral ko mu ñëw bokk ci ñun ànd ak ñun liggéey pour Thiès mën a jëm kanam donc kaddu yooyu gàtt yooyu laa amoon yu may sànni di remercier président moom la ñu di remercier Ibrahima Sall di leen remercier yéen waa Salaam ak ñi fi teew ñëpp je vous remercie. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di leen nuyu. di am mbégte lool teew fii ci bisu Mamadou Gningue bu ma leen waxee ne Mamadou Gningue ñoo ngi doog a gisante tey doo leen ko gëm waaye man li tax ma ñëw te ji dafa fekk ne nopp amul kubéer lu baax li muy def ci dëkk bi yëpp moo ngi ñëw du dugaat su suma nopp te boo leen gisee ma sol suma daal ñëw fekkee bisam bi dafa am ñaar ña nga xam ne bis bu jot ñoo ngi dëkk di wax lu rafet ci moom di rafetlu sama gisante ak moom ñaan ñooñu kenn ki mooy soxna Mati Ndiaye Diène keneen ki mooy El Hadji Oumar dem Mamadou Ñing maa ngi lay félicité di rafetlu lool sa bis bi di wax nag nit ki lii la mënal askanam dëkk fa nga dëkk juddoo fa màggee fa tekki fa mënoon nga yemale li nga am ci sa njaboot waaye da nga koy jël bokk ko ak waa askan wi kon ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax di wax nag askan wi takk ay takk ay tente teg ay chaise tëgg ay sabar neex na lool waaye li ko dàq moom mooy bu élection jotee ngeen dem votel ko ngir sagal ko moom mu am ndam bu rëy fi muy voté ndax loolu moo koy yokk jaajëf loolu moo koy yokk courage ba leneen lu mu amaat yéen waat ko indil leen ko man nag dafa am benn appel rek laa koy lancé moom Mamadou Gningue ne ko mouvement bii dama ko dama koy woo comme ni ma woowee tout à l'heure le docteur Papis Ndoye bi doon lancé mouvement am à Somme ne ko nañ leen tënk mouvement yëpp jël ko teg ko ci kaw loxol président Macky Sall ndax mu mën a defaraat suñu cees gi ndax Thiès metti na sonn nañu pas plus dëmb ak tey ji lëj fi Marème fay Sall yónnee fi fondation ñaari fan ñuy faj mag yi ci Thiès kaay yëpp te nga xam ne mënuñoo déplacé wu ñu fekk leen seen kër di leen di faj jox leen ay garab te kuñ ci war a opérer ñu yëkkati xaalis jox la def nañ ko ba defal ko ñi nga xam ne bokk ñoo ñoom parti kon nag ñooñu defar Sénégal moo leen tax a jut te buñ leen jàppale incha allahu rabi dinañ dem kon may lancé waat mon frère Mamadou Gningue ne ko APR président Macky Sall dafa woote ñu ñu wax nañ massifier kon nag ñun képp ka nga xam ne yaa ngi liggéeyal askan wi di def lu baax dañ lay dem jëli du ñu xaar nga ñëw ñun ñooy ñëw jël si la indi la na la yegsi ak jàmm ndax soxla nañ la ñu mel ni yow le président Macky Sall soxla kon ñoo ngi lay sant encore une fois de plus di la gërëm di la jaafa jaajëfal te di la wax bisimilah jàmm ñoo ngi ànd ak yow nekk sa ginnaaw di la jàppale ci lépp looy sumbul wasalaam maa ngi leen sant di leen gërëm. sama sañ-sañu ne mon peuple ou ma population pour ne pas comprendre parce que n'ont pas peut-être la chance d'aller à l'école où nous sommes allés Nous avons le devoir de le soutenir. Nous devons le devoir d'appeler la population à se réveiller. Parce que s'opposer est une bonne chose. Mais passer tout son temps à s'opposer alors que les gens qui nous dirigent vers l'opposition s'enrichissent sur notre dos parce que des partenaires étrangers les soutiennent, derrière notre deux, eux ils s'enrichissent tout le temps et nous on reste pauvres. loolu ma wax ci tubaab mooy ni que da ngeen a yàgg ànd ak ñoo xam ni lañ leen di gëmloo ni da ngeen di njàmbaar yéen xale yi. yéen jàpp ngeen ni njàmbaar mooy opposé wu fi ñu toll nii njàmbaar dëgg mooy nga gis nguur guy dem nga indi sa xel ak sa pas-pas ànd ak kooku pour defar dëkk bi parce que suñ nee da nga ànd ak nguur dañ naan da ngaa da ngaa am ay sikki sakka opposé mooy li gën a yomb ma leen di woo yéen ñëpp ngeen ñëw autour de mois parce que nekkuma koo xam ni damaa ñëw pour nax leen damaa ñëw pour gëstu seeni problème parce que xaaruma dara ci côté bële dégg li ngeen wax fi yëpp ñu ngi ko tënk ànd ak ñi ma nar a àndal pour wax ko ñi nga xam ne ñoo yore nguur gi di ànd ak ñoom di liggéeya ak ñoom ba seen temps jóge fi su boobaa nag ñu xool ñun suñu bopp naka nañuy taxawee pour jël nguur yi teg ko ci seeni loxo loolu mooy li nga xam ne moom moo ñu taxawee loolu nag ma bëgg leeral lenn képp kuy ànd ak man. dama bëgg ngeen wóolu ñu wóolu ñu ñu àndal ñun président de la république moom nañu àndal ci liggéeyam waxuma sax ma ci sàll président laa wax parce que moom la fi yàlla teg moom la bi ñuy dugg ci politique moom la fi fekk gisaguñu loo xam ne yàq na ko fi moo tax ñu jël li ñu am yépp ak nit ñi ñu gëm yépp ànd ak ñoom ndax liggéey waxuma pour mu jox ñu dara ndax liggéey wax ak moom mu indi ñu li ngeen bëgg ñu wax ko ko mu indi ko fii lool nag pour ngeen am ko da ngeen di tànn ay njiit yu mel ni Ousseynou Diouf da ngeen di tànn ay njiit mel ni Malick da ngeen di tànn ay yoo xam ni c'est des cadres avertis c'est des gens yoo xam ni xaw ko wax na ko léegi mais li nga dégg ci man moom laa dégg ci yow li nga dégg ci man yow laa dégg ci yow Malick Dieng mi wax ko aussi léegi li nga dégg ci man loolu laa dégg ci yow je pense que ce que nous devons faire dans cette ville de Thiès et j'en appelle solennellement à tous les mouvements et tous les partis politiques qui sont à Thiès de faire une fédération de faire un bloc contre le seul homme qui a empêché Thiès d'avancer aujourd'hui je ne veux pas le nommer vous savez de qui je parle parce que s'il s'agit de naissance il n'est pas plus thiessois que nous s'il s'agit d'intellectuel il n'est pas plus intellectuel S'il s'agit d'engagement, il n'est pas plus engagement que nous. Et je ne pense pas que les jeunes qui l'ont connu, il y a un avancement moindre que vous avez senti dans le changement. Vous avez toujours voté pour lui, vous n'avez jamais rien obtenu. Je vous demande de changer de cap, de venir vers nous. Nous allons vous guider vers l'émergence, vous guider vers la prospérité, parce que nous ne vous trahirons pas. Et ce que je vous dis est la très vérité. Il faudrait que de Dar Salam, de refuser qu'on vous impose des leaders choisissez vous-même vos leaders maa leen di ñaan yéen waa dëkk bi yéen di dëkk fii ngeen bañ ñu di imposer ay leaders tànnal leen seen bopp ñu jub ci yéen nga seetlu leen ba xam leen ngeen tànn leen ñu su ngeen ko defee lu ngeen bëgg da ngeen ko am man nag dama ne balaa boobu loolu lépp dinaa jaayanteeg sama borom jaayanteeg yéen lépp lu ma liggéeyoon ci ñaar at yi dencoon ko ndax sama njaboot. génne naa ko génne naa ko génne ma ko nag ndax Macky Sall yéen a tax ma génne ko su fi yemoon léegi sax neex na ci man parce li am solo mooy nga gis ay jigéen ñoo xam ne dañoo bëggoon a liggéey amuñu financement nga jox leen financement ren at mi ren at mi dëwën ñu ñëwaat seet si la gis ku nekk di yëngatu di fajal doomam kontante boobu moo ma rawal lépp loo xam ne bu baaxam ci atum te maa ngi gis nga gis ay xale yoo xam ni dañoo bëgg a dem école bëgg a fay inscription yow nga denc ay millions toog ne doo leen jàppale te nee nga da jàppale réew man loolu xaw ko gëm naa ne loolu it du leen ko gis ci man dinañ jàppale xale yi ñu jàng dinañ leen financer pour ngeen liggéey dinañ ànd ak yéen ci li ngeen bëgg di déglu seeni soxla di xool loolu naka nañ koy defee lenn rek li soxla Mbathio wax sama jigéen di ko gërëm di ko sant parce que moom engagement bi mu am na jigéen ñëpp xool ci moom son engagement son engagement est sans défection